panjang puji Jap puji dam degi jap yalla tuddu turam moy degi tuddu yalla borom tuba di tuddu turu magna moy degi tuddu yalla mbon ma agna ku bëgg a sell del si kar turam wi si kasiiran tey xalam melom wi di ko fi sigri wa tafakkuri ku ko saxoo war dootu la sori walliyu kaamil mooma dey turam wi madi ko zikkar ba jano melom mi gisna je mam je dégg wax ja wax ko mu wax ma momit lam ma wax ma yeko waya du te mana ko nam na la borom ya kar ji beug na la waya du te mana ko nam na la borom Tuubaa yaakaar ji Ah ah la ah sëñ ah ñu de contane nañ waaw sama mbokk sama mbokk chauffeur yi laay wo waaw macha allah ñu ñëw xool daara ji daara ji am na yu yem yu fi nekk macha allah voilà ñu xool café geeg was beeg macha allah was moo nekk nii waaw bii bu mag bi la euh, bon bi tamit euh, bu ndaw bi la macha allah waaw lépp ngi fi daal sama mbokk tijaan yeeg sama mbokk mouride yeeg ñëpp ku si bëgg laxasaa yeeg barakis yeeg euh, yëfu is bu daal macha allah lépp ngi fi daal si daara ji waaw ñun ñun moom ñun sëfër yi moom ñun ñoo ngi siy gis suñu bopp macha allah man mom mang ci gis sama bop ndax sa yu ma xewé fi laa jaar la sama benn case café Ba, su ngone nak ma jaar fit la was waaw xaw firi waaw ya ma gëna xam ma sha allah. waaw mam fallu mom fi bo gisé ñu fiy ñëw yàgg xamanté ak mom te mom mu ngi fi def benn liggéey bu am solo waaw mu ngi fi défar café go café gu neex la des fois mu défar fi was tamit bo kaman tenek was bu neex la waaw té bu dul lool mu ngi fi jaay yenen affaire yo yu nice la daal. fii gars bu ñu jógee entraînement maam Ngéej bu ñëwee fii dañuy laal si was bi de waaw parce que moom mu ngi def effet moom macha allah. ñun saa yu ñu wàccee fii la ñuy jubal si suñ liggéeyee ba pare dañuy laal ci café Touba bi parce que day wàññi jafe-jafe waaw dañ laal bu baax a baax a baax waaye was bi beneen affaire la kenn du wasu maam Fallou bi maam Fallou was bi daal. taw féexee na daal. alaykum yeen ñi nga xamni ni nga suivre sen sen bi di Texcom TV Bamba tay nak euh, ñoo ngi fi ci bërebu akhibaul Khadim set si fi Serigne fallu mu doon jeewriñ jo xamanteni ni xamna ni wa dekk bi yeb xam nañ ko ci was ak kafe ak laxasaayu murit yi nga xamanteni ni mom lañuy soxla mom nak mu nekk fi di def liggey bu ama am solo doon ndaw lo xamanteni ni manam ci xidma rek lañ ko xam. ak liggéeyal sëñ Touba ak jaamu yàlla kon xam naa ni euh, du ñu def dara lu dul sekk ak moom waxtaan mu wax ñu bërëb bi lan ak lan moo fi jaay ak ni nga xamante ni noonu la bërëb bi doxee ak ni ko sampee ba mu yegsi fii kon sëñ Fallou bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la ñaanal jàmm di ñaan site bi di kom sëriñ bi yóbbu ko fu sori. barke borom Tuba. waaw daara ji bari na lu fi jaay loolu ni ñu ko gisee nii dallu ngaay am na fi am na it maxtum mbegere am na it kafe Touba am na it was am na it ziki parfum ziki nag parfum la boo xam ne murite dañ ko bëgg lool te fonk mu doon parfum bu am solo waaye it ba léegi der dañ koy defar waaw ay laxasaayu der yu mucc ayub dañ koy defar ku ko bëgg rek soo defee commande ñu defal la der yu mucc ayub lu mel ne ay ndomba baat dañ koy defar ak njalabaan ay kurus sa yëpp lépp loo xam ne daal jëm ci bagage yi murid di teewoo soo ñëwee fii dañ la ci defal la kawe sa njort ba ci lu mel ne dàll am nañ ci ay qualité yu baax comme ñi nga xam ko dañ koy yitewoo ci julli geeg yoy am nañ ci ay qualité yu baaxa a baax waaw comme koo yitewoo rek waaw lu mel it kurusu njalabaa nak taxay ak nga xam bay daaru yi dañ ko xewal yépp lek bu ci way bëgg am na lu melne ne it deri ñoko ci sendo waaw café gi dañ ci dox waaw café gi dañ ci dox bu baaxa baax ndax daanaka bëre bi biñ koy dogo samp café rek lañ commencé won gis nañ ne amna ak yokote bu baaxa a baax ndax fi ne ñu ngi defar was daanaka am na ay hôtel yoo xam ne dañuy woo sax dañu ko defar loo ndax démboo am na benn hôtel bu ñu woowoon ñu ko doon liggéeyal daanaka ci lañ gi xalaat ne war naa gën a mën a yaatu moo tax ñu defar biteel yi biteel bi bu nekkee bu am suukar bi la dañ koy weccee ko trois cent bi amul suukar bi ñu koy weccee ko deux cent cinquante léegi nag ba ci tabax bi ku ci bëgg ay commande yu mag am nañ ay yeneen xeetu biteel yu mag a mag lu ci waay bëgg rek ngay xew lu mel ne génte wala ceet ku ñu woo it ñu wasal la wala ñu kafel la daal suñu liggéey la képp koo xam ne jokkoo nga ak ñoom ak ñun rek soo ñëwee dañ la ci defal lu kawe sa njort. waaw secret bi ci nekk nag ñëpp xam nañ ko li ci gën a gaaw fi mu ne ku xiif du ko naan moom faaw nga lekk ba suur soo ko naanee nag lépp loo lekk mu reesal ko ndax it bagage yu naturel la lañ ko defaree. jinjeer limo ak naana moom lañ ko liggéeyee kon mu doon loo xam ne lépp daa naturel waaw kalandoo yi moom dañ ci barke lu baax rawatina nag waa école CS Lamine Senghor ñoom moom am ma seen fay ñoom chaque jour guddeeg bëccëg ñoo ngi fi. Euh, café la café moom sëriñ bi moo ñu ko indil muy sëriñ waaw muy sëriñ euh, tukkeem bi bi ñëwee la indil café waaw. soxna satu Mbàkke Gaawaan nga xam ne bëgguñu ku dul moom da daan sant loo taalibe yi ñuy defar kafe daan ko ko defaral mu koy jox ndongo yi kon kafe moom ku xam murit xam ko kafe waaw man nag saa bu ma rek am sama wakaana xaqan am kaasu kafe man soxlaatuma dara lépp baax na ba noppi waaye nag rawatina sama yaakaar moom du ma ko fàtte benn yoon si Moustapha Mohamed yal na fi yàgg loolu te wér daanaka ñu bari dañ may laaj ne ma fàllu bëgg nga euh, weex ak baxa ma ne leen nag ndigal la te suñu sëriñ liñ li mu bëgg rek lañ bëgg ñun waaw sëñ Moussa Mouhamed lu mu bëgg rek moom lañu bëgg. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba waroon na waroon nag tey ñu fab ruux yi joxu koko diggantal sunuy kër baay ak i ndey di dem Touba. rasuulillaahi xam naa ni na tey nde daa sopp kuy way lool akay kañ borom Tuuba